ko njaago am na yëmbal ko njaago am na am na Grand ko njaago am na jàmm gën ndege yi ay njaago lañu <laughs> xolal fara njaago booy ay njaago lañu ay njaago lañu eh, ay njaago eh. ah. eh, yaag Yves sama xel ngi ci kolo 부글부글해. 에, 에, 눈이 눈이 어디냐고? 아? 에, bërëm butakala. bu xama xama Ndiago vraiment nag nii moo tax ñu naan da nga bari histoire ay butakala ay bërëm yooyu ay gestu xeex la xeexu Ndiago di jeex loolu la gars yi wax mais siyaar nañ leen mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne annoncé leen ko xam ngeen ni jugee nañu. fële nga xamante ne nii moom mooy ci banlieue ba dugg si waat nañu ci biir banlieue bi mbokk yi ñu ngi ci bërëb boo xamante ne nii phénomène génnee na fi mbokk yi ñu ngi ci bërëb boo xamante ne nii ndaanaan génnee na fi te bi mu fi génnee c'était pas évident tey jii mu yegg si ci niveau bii ci làmb mbokk yi ñu ngi ci bërëb boo xamante ne nii tey xale bi ñu fiy seet dafa am royukaay xale bi ñu fi seet si génnul jéggaaniwul lenn ci loo xamante ne ni moom loolu lay def ci li nga xamante ne ni mooy métier mbokk yi tey bi ñu ñëw xale bi ñu fi seet dafa am ci ku mu roy wala bu ci moom am na lu mu jël ci moom karaajo jox ma kooku Siteu moo féete càmmoñ ma ngay xar bébé dóor na ko ci daan ko waaye xoolal ma supporter yi Siteu yi waay laay laay la laa kenn mësul gis lu ni xale ya cummikaay la tas na ñëpp daw nañu wuti xale ya mais Siteu li ma lay jëkk laaj mooy supporter yi nga àndal du lenn lu dul li nga xamante ne mag moo moom nga jox ko xale lu moom nga jox ko waaw maa sant yàlla waaw di julli si yonente bi di sant sama ñaari waaju waaw yéen a ko gis mbokk yi kooku moom mooy Siteu le grand champion moom la xale bi roy wala mën nañ ni xale bi am na lu mu jël ci moom ba tax tey jii ñu bari buñ ko xoolee seen xel dem ci kooku tey mbokk yi war ngeen a xam ki ñu jël si ki ñu jël si mbokk yi moo dëkk jàmm gën ki ñu jël si mbokk yi moo dëkk koñ njaa salaamaaleykum def bu bu bu la bu taakala bu taakala bulom yéen a si jàmm kii sama mère bi maa lay siyaare naka liggéey bi tey xale bi ma seet si Liss Ndiago loo may wax si moom mhm. ñun waaw bëgg meeram bëgg meeram waa koñom ndeysaan ñëpp a ko bëgg. Ah. kenn bañu bëgg xale bu yaru da baax. waaw ndeysaan kii siis la sant siis la sant ndekeegul. mère ana ndekili. ah ah, ah? mère yéen kay mooy loolu quoi. mais mais mais ñu ngi lay siyaare. Liss loo may wax si moom. Ah,

eh. sama secteur de. kii kàlla nii. maa ngi papa. abugu papa. loolaa wax ak yow. bilaay yow. bi dafa am beneen phénomène ci biir kër phénomène bi dafa am beneen phénomène. kii moom it champion la mi ngi ñëw yegg seegul mais mi ngi ñëw waajal leen ko mais maanaam yegg seegul waaye am na loo